kilifa diine yi léegi barki démb hmm? ma ma ne ñu ngi woon ci kilifa diine yi barki démb ma jàmbal jaañ taxaw na wax ne bi élection yi deux mille yi jeexe hmm? ñëw na euh, sëñ Bass woolu na ko ñoom ñaar ñu toog waxtaan mu ne ko euh, Ousmane Sonko mii ñi ko war a xeex ci yéen yéen a ci war a jiitu ndax bu euh, salafiste la bu jëlee réew mi ci seen kaw lay dal ak yooyu noonu ba sëñ bas ak lam ko tontu ne ko konkat kat sëñ Madiambal loolu war nañ cee jar naa def taxaw seetlu noo déggee seen wax jooju. non man euh, wax ji jépp li ma ci dégg ma jambal laa koy ji ah. gawma ci dara ah. lu tax gawma ci dara ma jambal moom yàgg naa jàmbi fen mm-hmm. waaw tàmbaliwu ko tey rek mm-hmm. man nag damaa mënuta nangu mm-hmm. nit ki nga xam ko ci ay fen mu wax benn wax tey ah. nga bëgg ko gëm man su ma jàppee ne yow mi fen kan nga loo wax man dama jàpp ne fen la man ba léegi nii gëwuma ne loolu wax ak sëñ Bas loolu ne wax na ko sëñ Bas gëwuma Hmm. gëw ma ko man gëw ma ko ku mu neex na gëm waaye kii wax laa gëmut parce que dama koo xam ci fen ma jabal dama koo xam ci ñàkk dëggu ma jabal dama koo xam ci wax lu du dëgg. kon buñ wax lu ma mag la de. ah journaliste bu mag la buñ bàyyi xel. mais journaliste bu mag. Hmm. su fekkoon ne xam nga jàng moom. Hmm. Euh, wërsëgu xel la rek. waaw mais nag jikko ju rafet mooy wërsëgu xol. waaw booboo am njariñ loo jàng jàng. te sa xol baaxut jàng woowu jëriñu la dara mi ngi mel na mbaa mu sa fi téere rek hmm. jub moo am solo hmm. ndax yow jàpp nga ne ma jabal ku jub la ku ko xam rek nan ma andil ñi ko xam ma jambal kon xool sa xam ne jubut tegal ñaari kaara yi rek ñaari kanam yi nga jàkkaarloo ak ñoom nga boo xoolee rek da nga hmm. nit ku baax ak ku bon ki ma jambal ko xool xam ne jubut ah. waaw man daal góob ma dara lu ma waxal si Cheikh leen gëwuma ko man hmm. man gëwuma ko man li ma jàpp moom mooy ma jàmbal daa bokk ci ñi nga xam ne ne dañoo jug di yàqal Ousmane Sonko te ñoo ci mujj yàqoo de. Hmm. parce que mbërëm yàlla kenn mënu ko daan suñu boroom ci boppam dafa am ay jikko yoo xam ne ni bu ko xasee def ci nit jeex na hmm. ndax suñu boroom moo wax ne ah. ànd na maag wooy muñkat yi ah. Ousmane Sonko ku ne xam ne muñ na jub ku ne xam ne ni mooy diine ah. Ousmane Sonko ku ne xam ne ni jub na Ousmane Sonko jikko yooyu rafet yi nekk ci moom mënta nekk ci moom ba noppi la yàlla wax de dañ yàlla ku mu àndal hmm. lu waaye jëm ci yow yàgg yàgg ka jëm ci yow mooy daan waaye yow doo daan Ousmane Sonko kenn ci ñoom ko ko mën a daane amul man fii ma toll nii maa ngi gëm la ma waxoon ne téeméeri nit ma Macky man la Macky Sall lu ma dara hmm. mënal dara gi nag ñu baree bare dañuy foog ne jàpp tëj ci kaso non non loolu du dara ah. jàpp tëj ci kaso taxul nga mënal ko ku am dara Hmm. ku fi amul tur ku fi siiw ku ne jaar nga kaso. Hmm. waaw jaar nga kaso. mais jóge kon ci ban côté la. ah li ma ko mënaluma dara ban. mënaluma dara mooy mënut a fexe fexe fexe ba li ko yàlla nar a def. moom usman soo ko ma Sall mënut a fexe ba du ko def. waaw waaw. Hmm. foofu ci gëm la gëm lay waxee. waaw moom dafa gëm ne lu yàlla àndul Macky Sall mënu ci dara. Mm-hmm. lu mu defut Macky Sall mënu koo jiñ ba loolu dëgg gis nga lu du dëgg mënoo koo tabax tabaxa tabax bu mu nuru dëgg yàlla nangu ne lii dëgg la ah. waaw loolu mën taam mm. te Ousmane Sonko yàlla ci boppam moo ko jubal mm. damaa jëlale moom waaye ñi ànd ak moom sax rek ay nit mu jublan mm. parce que nit ku jub mooy xam nga mu yow man fi mu nekk nii bu ma àndoon ak euh, Macky Sall ah. boo ñëwee ci kër gi dana weesu lii ah dana weesu fii ah <laughs> su ma àndoon ak Macky Sall coono yi may daj du ma ko daj keneen nag noonu keneen noonu ñi ci kaso yëpp. Hmm. bu nangoon a taxaw ci kaso ba ne. bis ni ki tey bàyyi nañ usmaan Sonko ñu ngi ci ginnaaw Macky Sall ñu bàyyi leen nu fanaan uh, kaso. Hmm. duñ fa fanaan kon. kon ku wocc Macky Sall woon ko ginnaaw. Hmm. dangaa ngaa wocc te ne doo ko tudd too ko lekkaat. waaw loolu mooy li nga xam ne moo ci am ay gor Ousmane sonk gor la ñu ànd ak moom ay gor la ñu. kenn ku xam ne ni mën ngaa fexe nag ba jëlee ci lu nekk doo nit. doo nit. tey euh, candidature Ousmane Sonko gis nañu mu demoon euh, pour jëli fiche de parrainage. Mhm. foofu la ci ñu bañal ko ko. mu mhm. nekkoo ci liste bi mu dem euh, defi recours fële ca cour suprême cour suprême dëggal li nga xam ne moom la DG dogaloon. Mhm. tamit diggante boobu nga xam ne Ousmane Sonko jaar na ci ci koo xam ne ñu ngi doon yaakaar nga nekk candidat ban gis-gis nga ca. non loolu moom yaakaaruñ ko woon. Hmm. su fekkee ne diglu nga Amadou Ba. avant muy déposé ji. Hmm. séentu woon na ne. Hmm. dan leen koy bañal. Amadou Ba bu Pastef. waaw Amadou Pastef. woon nañ ne dan lu koy bañal. Hmm. parce que loi ci boppam mbiram loi. moom leen jël gas ko suul. waaw moom doxut fi. lu neex Macky Sall moo fi wéy moo fi wéy. moo tax ñee. bañ gin ko bañ andiwul parce que kooku wërtu na bañ sax. Hmm. dèjà maanaam warutoon a bañ. Hmm. waaw moom yoonam daanewul ci loolu waaye daf na dañ ko koo sant. ah hmm. te waruñu ko woon sant. gis nga am lu loi moom kooku moom. ah DG nag ci ci ministère de l' intérieur ci ministère de l' intérieur la bokk. waaw te ministère l' intérieur moom moo jël décision. boobu waaye xam nga moom li ko waroon rek mooy yëkkati prénance jox ko. Ah. loolu rek moom moom li ko waroon ñuy def ñay gàntal ña nga ca kanam. waaw ah. waaye nag comme moom dafa dañ koo ne dafa bu ñu FCA gànt. Fallou. da xool ñi nga xam ne ñoom lañ ko jox ñëpp. ndax ñooñu yow fi mu nekk nii suñ la tëkkale woon ka ca gën a rëy ci ñoom. Hmm. ak ak Ousmane Sonko ci mu yor réew mi ko koy jox Ousmane son nga jàpp parce que su fekkee ne réew mi baax dong moo la ñor. waaw ki jub liggéeyal réew mi loo xam ne nii fukki at ak juróom yàqalu Sénégal dara. bu fekkee réew mi jub dong moo la ñor bu bëggee moom nga koy jox. nan ngay gànte lekk jub nag mu jarala lu ne mu jarala lu ne hmm. nga fekk ñoo xam ne ni koo xam ne ni da ne sàccoon na ma téeméeri milliard ak nàngam hmm. nga ne ko ñëwal bokk hmm. fekk koo xam ne barki de moo njaay rek ñaata milliard ak nàngam la kii ba ba jooye fii nga ne ko ñëwal bokk fekk ñoo xam ne nii la ñuy def ci bitim réew ñu ñëpp xam nañ ko ah. nga ne ko ñëw leen bokk mais kii nga xam ne ni moom dafa jub li ëpp ci Sénégalais yi ànd ak moom nga ne du fi toog loolu ku ne xam na lan la. bu hmm. nu kenn wax ay loi ah. bu fi loi amoon loi bu fi doon dox. Hmm. kon Ousmane Sonko ginnaawam bëndal. Hmm. kon jàmm rek lay am. amul dara lu mu mas a def loo xam ne mas nit mas mën na ko ci xañ leen. amul lu mu mas a wax lu ko nit mën a xañ leen. mu sàmm est-ce que kon léegi Ousmane Sonko mën naa xalaatee te Ousmane Sonko candidaturam comme loolu yëpp. ja waaw loolu nag mi ngi aju ci Macky Sall. Hmm. su fekkee bëgg na jàmmi Sénégal. Hmm. candidature euh, Ousmane Sonko. Hmm. danañ ko jox mais ku yaakaar ne. ay urne dana am fii ci Sénégal te Ousmane Sonko du ci bokk. kuy wutab dof say moom jàpp la yóbbu. Ah. billaahi maa la wax lii parce que li ëpp ci yi. nga bëgg leen a xañ seeni droit yaakaar na yow mi ko leen ko xañ hmm. danga am jàmm réew mi am jàmm doo nit pourtant ñu bari jàpp nañ ne eh, ah, mbiru Ousmane moom classé nañ ko quoi. kala loolu ci leen jàpp ñoom la waaye mbiram Ousmane Sonko waajalaguñ ko sax ñun. Hmm. waaw du leen nit ñu yàq wala nit ñi def euh, aw ay. Ah. loolu ku ko seet ku ko bëgg a seet da nga gën Pastef. waaw waaw. Hmm. parce que bari nag loo xam ne day am sax fekk ñoom ñooy fay ay nit. mu raaxaloo ci ay nit Pastef def ko loolu ñun xam na ci lu bëri parce que hmm. keroog bi ñuy taj euh, euh, tas euh, Moustapha waaw mitin ban ko doon tase booba ñun dem nan hmm. la fa xew xam nañ ko ak la ko waral hmm. ah, ku ko waxati ana kare won da tas na ko ba mu ko waxee lu ci mujj mooy tas gii ñu wax ne tas nañ ko Pastef waxuñu dara luy dëgg parce que lu dul dëgg mënoo fexe ba def ko ci xoli nit ñi Ousmane Sonko ak ñi ànd ak moom li nu bëgg kenn ku ko mën a teree am ku dul yàlla suñ borom nekku ci kaw suuf hmm. waaw ah. Ousmane Sonko day bokk ci élection deux mille vingt quatre hmm. te day gagné incha allah ñu ci bari nee nañ Ousmane Sonko ñu ko tayle mooy jeunesse bi ndax eh, ñoo daan oh, bu mu mosaan woote ñoo dem feesal ko naan ko pare nañ mun a gis nañ ne jamono yi euh, bu ko bu ko état bi xawee sonal du gis ci maanaam Fallou état ci boppam ànd ak doole jim mu am jàkkaarloog moom te yërëmu la moo yombut te amoo kenn kuy àtte dëgg ci réew bi ku koy wax ne ko bàyyil ñii ngay rey bàyyil ñii ngay tëj bàyyil ñii ngay gaañ loolu moo yombut même Ousmane Sonko. lim jaral sénégalais yi damaa jëlale Sénégal waaye kenn mën ko mës koo gis ci euh, ci Afrique ba suñ tey jii tey lañ ko gën a gëm Sénégal bi ngay wax tey leen gën a gëm Seydina Ousmane Sonko tey lañ ko bëgg gën a bëgg gis nga fi mu nekk nii dañuy taaxeral waaye li wolof njaay wax naan xar dafa dafa dafa wuti doole loolu moo ci am wala dañ ne tekk rek parce que am nañ fu mu jëm ci yàggatu waaw ah, découragé tey lañ gën a am courage maa la xamal lii ndaw ñi nga xam ne ñoo gëm Seydina Ousmane Sonko tey leen ko gën a gëm mën naa la ko loolu itam système la parce que gis nga yuuxu yooyu koo xam ne ni da dem ci barab pour bëgg ñu di la tàcc ñu lay far yuuxu neexul kenn loolu tere naa ne law Macky Sall du mu podee système la boo xam ne nii ni mu naqe góor na ni mu leen naqare rek jéggi na dayoo ñoom dem na ba sax ñuy nanguutu day organiser football bu waroon am fi ñu yóbbu ko meneen réew ah gënalu lu gën naqari Macky Sall ci jamono jii nu ak ñi ànd ak moom mooy euh, stade yooyu gaa yi euh, xale yi dem naan na yow yow fii fii gisoo fi euh, train bi ndax ñu ñëwoon newoon ci biir train bi génn na ah mbaar yeen leen defoon dugg nañ ca dugg ñu ca lu tax baat yi ñu jégg neexut waaw gis nga loolu yàlla xam na ne buñ bàyyiwul lii ñuy wax picc yi sax dañ koy sab waaw li feeg ñu ngi sonal Ousmane Sonko gisagul dara mais tey jii la ko gën nit ñi gën a bëgg xale yu ndaw yi. ak mag ñëpp a bëgg naa Ousmane Sonko même waa Kër Macky Sall ñi am na ñu jaa ànd ak moom de. waaw ñi ma wunoo wax waaye Ousmane Sonko leen gëm de. Ah. waaw waaw li seen xol nag dañ ko téye ñi ma ko génne ci seenu làmmiñ. Hmm. waaye am na ci ñu ànd ak moom ñoo xam ne xam na ne Macky Sall li muy def dara du ci dëgg. Hmm. Ousmane Sonko mi moo nekk ci dëgg. Ah. gis nga dëgg googu nag mooy mujj. waaw ah. tey euh, fii Touba lañ nekk. Mm-hmm. Pastef gis nañ doole ji nga xam ne amoon na ko ci ci ay élection mm-hmm. ak euh, même lu dul élection yi sax installation de cellules yi nga xam ne activité yi nga xam ne ñu ko daan def da daan am doole lool. Mm-hmm. daanaka ñu téye woon dëkk bi ñu jékki-jékki ñu interdit fi politique. activité euh, Pastef tamit est-ce que du wàññi doole Pastef fii ci Touba. Fallou Touba Pastef mosu fee politique. Hmm. parce que siège ay installation cellule daan na fi am tamit. waaye yooyu installé nañ ko. waaw ah. installé nañ ko. Hmm. te gis nga installation cellule yooyu. Hmm. même bu fekkee dan euh, doxatuñ ko. Hmm. ñu ngi dox. Ah. ñu ngi dox. Ah. te gis nga fi mu nekk nii Touba gii ñu. Pastef mos de benn yëngatu politique suñu siège ma nga Mbàkke. waaw yeneen siège nekk biir Touba de. waaye ñu si siège ma nga Mbàkke suñu ko teree politique ci biir Touba nag. Hmm. man nga ne benn ñun doon bañ ko lu njëkk a wàññi. Hmm. waaye doo doo fa yem de. waaw su sunu mënee teree ñëpp dara néew ci. waaw kan nga fi dékku fi yëngut. Hmm. kenn ni politique fi de. Eh. politique boo xam ne ni nag bu la neexee. nga muur ko ñëpp xam ne nii nga ko tuddi lu noonu. loolu sa affaire la. waaye ñun waa Pastef moom mosu ñu politique Touba. waaw cellule yi naan euh, euh, def biir lëkk bi sax. lu niroo comme pox mos waaw hmm. ñun rek ñooy nit ñoo xam ne nii li ñuy woote hmm. di ko wax moom la ñuy jëf positif Touba hmm. waaw loolu nag ku yaakaar ne da ngay toog foog ne mën nga koo ree yaa ngi nax sa bopp mooy li ma la wax léegi gis nga nit ki li ci loxoom nga mën a noog waaye li ci xolam mënoo ci tus mais est-ce que doole ci non non ko tey ji la yokk tey la gën a yokk tey jii la gën a yokk tey mën naa la wax ne fi nekk nii hmm. saa bu buñ jëfee ñoom jëf ju ñaaw yaakaar ne day wàññi euh, Pastef wala day wàññi Seydina Ousmane Sonko dara keroog la ko gën may doole hmm. maa xamal lii waaw am na ñoo xam ne xam naa ne ci jeexal lay jëm sax ñoo xam ne nee nañ li nga xam ne ci ay jafe-jafe Ousmane mi ngi koy daj ci politique gu Sénégal kenn musu ko fi woon daj ñenn ñi sax ñu ngi koy comparé ak Abdoulaye wàdd fekk nga fi um, li nga xam ne moom mooy Abdoulaye Wade bi muy opposé wu euh, li nga xam ne ni mu daan demee kasoo ko génn est-ce que mën nañ ko comparer ak euh, li nga xam ne ñu ngi koy teg Ousmane Sonko. Ousmane Sonko lim daj ci politique Sénégal. Hmm. damaa jëlale Sénégal waaye man adduna bi gisuma kenn ku ko daj. Hmm. ndax adduna bi li ngay dégg ku def ñu jiiñ ko ngay dégg. ku ah. def. waaw ah. ñu jàpp ko teg ko ay daan ngay dégg. Ah. waaye ku defut ñëpp xam nañ defut. ñu jiñ koy ay tuumam teg ko ay daan hmm. loolu ci Ousmane Sonko dong nga ko mas a gisee waaye ngor gi nga xam ni am na ko it ci moom dong nga ko masa gise gisee hmm. Ousmane Sonko moom rek nga mas a gis hmm. ni mu jube ku ne jube ci politique ah. waaw li ñu ko teg nag ku ne xam na ne li ko ko teg mooy président yooyu nga wax ñépp